haada nadirum min annuduri l ula azifatil azifa laysa laha min dunillahi kaashifa afa min haada alxadiisi taajabuun wa tadxakuuna wala tabkuun wa antum saamiduun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 bi fadlika wa juudika wa karamika yaa karamal mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot yàlla yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci réew yi ko wër élection yaa ngi ñëw gaa yaa ngi ci campagne bi yàlla na lépp nekk jàmm yàlla na seddu guy yàlla na tànnal nu ki gën ci nun ci pénc mi waaw tabaarkàlla nu bàyyi ci xel baax a baax te yëg ne Euh, tànn njiitum réew ci farata la bokk bu ko kenn né négligé sa Ahmed Dame Ndiaye nee na bi sunu borom waxee wala taktumu shahaada la ko defoon muy farat afa min haasal xadiis yi taajabuun wa tadxakuun wala tabkuun <laughs> waaw sunu góor ga ndeysaan alxaaji njaga njaay ca njare tubaa njaay alaaji njaga njaay ca njara tubaa njaay bu ko nit masaana tàggu ne day defi concours wala nangam ba mu jàngal af min hazal hadis taajibun <laughs> kii googu góor waaw rahmatullahi ali yàlla na sunu borom mooy fal ci kaw waay yi démb bi ñu yëkkati jataay bi danoo jeexal ci was juddu fas juddu lillahi ba duggoon waabudu muy ñaari baat borom bi ne sujjóotal leen sujjóotal nan ko sujjóotal te jàmm ko waaw nañ ko sujjóotal te jàmm ko ndax sunu waajur wa xaaji Abbas Sall daf daan tere yàlla nunu yàlla nangul sunu jaamu yàlla <laughs> waaw nee loolu du tawxiid yàlla nunu yàlla nangul sunu jaamu yàlla mu ne loolu du tawxiid waaw daf sono sonaloon benn borom xam-xam ca ca màkkatal mukarama yàlla nu yàlla nangul sunu jaamu yàlla mu ne waaw kañ la fi ñaari yàlla <laughs> waaw bunt bu am solo moo tax may bañ wax ne yàlla nee na fas ju dolilaahi jaamu leen yàlla yàlla nee na jaamu leen yàlla bu ko bu ko xaj ah, moo tax keroog ba ba mbokk yàlla télé télé séddale dégg ko ni ko déet waay mu ne ko ah waaw lii mu jox belees moos mu ne ko kon de xamoo luy séddale mook moom mook góor ga ndeysaan bu góor ga ne ko ah yow kat ndeke doo gone lay ndeysaan waaye daal ñu jeexal ci fas fasjudu lillahi nekkoon ci wa abudu ma wax démb lan mooy ibaada ci lislaam te mooy baat boo xam ne bii dafa ëmb lépp lu yàlla bëgg te gërëm ko waaw ma nekkoon ci kon baatu walla waxi cheikhul islaam ibnu taymiya ca risaalaam ba tudd al ubudiya mu ne ubud al ibaada tur la woo xam ne dafa ëmb baat la boo xam ne dafa ëmb lépp lu yàlla gërëm te bëgg ko mu doon tàmbali lim nag julli azaka woor aj saraxe ak wóor tolloon ci birul waalidayni baax ci say ñaari waajur mbokk yi ndekkee baax ci say ñaari waajur ci ibaada la bokk aka jafe ñaari bu nit ki nekkee ci ibaada rek seytaane xeebloo ko ya baayam xeebloo ko yaayam mu xeeb li baayam nekk xeeb li yaayam nekk ndax lan parce que yow jàpp nga ne yaa ngi yaa ngi def ibaada lillahi subhanahu wa waaye nag waalidayni nag moom pour yow bon lislaam bëgg laa wan ne sa baay lim nekk wérut sa baay li muy def baaxut sa baay ñi àndal jibuñ nga daan ne teg get sa baay teg fële continuer mu di la ko layalal di la ko jekk-jekkalal ba mu jekk ba mu jekk ci sam xel nga ne fa ñukk sa baay ne fa ñukk sa yaay dem ah mbaa boo àggee da wax doo agsi rek sunu borom ne la wa ma ajalaka an xawmika yaa Musa waaw ala xaal baax ci sa ñaari waajur ci ki ibaada la bokk ba ca tege silatu rahim jokkoog bokk ci ibaada bokk jokkoog bokk ci ibaada la bokk waaw waaw ak bokk dañ koy dox di ca wax di ca joxe lay mbay Peex nee na yàlla na ko yàlla yokku wér <laughs> nee tànk mi doxuk bokk bañ bokk gi xajam moo tax yàlla xañ ko kawar làmmiñ miy wax pour defaruk bokk bañ bokk gi xajam moo tax yàlla xañ ko kawar tënk liy joxe pour defaruk bokk bañ bokk gi xajam moo tax yàlla xañ ko kawar ñetti barab yooyu kenn du ko amal kawar aw làmmiñ loxo xol tànk maanaam tenk ak xol tànk kenn du ci am kawar kon nañ leen defloo yi tax ñu xañ leen kawar mooy doxuk bokk ñuqi joxe ci bokk te wax luy defaru bokk loolu ci jaamu yàlla la bokk bokk na ci jaamu yàlla sàmm kóllëre ndeysaan sàmm kóllëre allahu akbar waaw sàmm kóllëre ci jaamu yàlla la bokk nit ki wëllëranteeg yow ah ndeysaan nit ki wëllëranteeg yow sàmmal kóllëre gi bu ko firi mukk bokk ci jaamu yàlla digle lu baax ci jaamu yàlla la bokk digle lu baax ci jaamu yàlla la bokk kon li ñuy def nii maak Oustaz Ahmed maak Oustaz Alioune Mbaye mi fi jiitu oustaz Mbàkke si li mi ñëw après ak yeneen oustaz yeeg yeneen borom xam-xam li ñuy def lépp yàlla na ko dug yàlla dugal ci euh, ci jaamu ndax al amru bil maaruf la digle njëkk wa nahyi anil munkar tere lu bon ci digle njëkk la bokk ci jaamu yàlla la bokk tere lu jëkk di dañ koy digle mun kër dañ koy tere yàlla nañ xàmmee maaruuf ak munkar nag ak maraati bi ñu dindee ma yi ñu diglee maaruf ak maraati bi ñu dindee munkar yàlla nañ ko xàmmee ñun ñépp tabaarakallaahu mbokki maa ngi surat najm ay 62 ci baat yi mujj fas juddu lillahi waabudu maa ngi ci al ibaada jihaadul kufaar wal munaafiqiina ci jaamu yàlla bokk jihaad ak yéefar yi jihaad ak naafiq yi ci jaamu yàlla la bokk waaw étape ba jihaad ja laaj loola mooy jihaad ja jihaadul kufaar wal lu waxlus alayhim lañ ca tegaloon alayhi salaatu wasalaam waaw loolu ci jaam yàlla la bokk su fekkee dañuy kufaar yeeg munaafiqoon yi dañuy wax nga wax tontu leen bu ñu dee bind nga bind tontu leen bu ñu dankee korpañ nag nga dank korpañ ba xam waaw loolu ci jaam yàlla la bokk al ihsaanu lil jaar rafetal ci sa dëkkandoo ci jaam yàlla la bokk rafetal jëm ci sa dëkkandoo sa dëkkandoo bul wax lu koy lor bul def lu koy lor bul wax sa dëkkandoo lu koy lor mbokk yi bul jëf sa dëkkandoo lu koy lor dëkk ak nit tam ko ak ndëmb yàq nga dundam dëkk ak nit tam ko ak ndëmm yàq nga dundam gi dëkk nit te loo tilim le xëpp këram yàq nga dundam gi dëkk nit te foo waxee wax ci moom lu baaxut yàq nga dundam gi yooyu yëpp dafa xaram rafetal ci sa dëkkandoo ci jaam yàlla la bokk bul ko wax lu ñaaw bul ko wax lu bon bul tontonteeg moom bul xuloog moom waaw rekk tabaarakallaahu bu feebaree seeti ko bu jaaxlee taxawal bu la lebee lebal ko bu la abbee abal ko bu jógee def dara jàppale ko ca loolu ci rafetal la bokk bu bu feebaree demal nga seeti ko bu faatoo te nga am jot demal nga gunge ko sang ga nga ànd ca sang nga ànd ca rab ga nga ànd ca jullee ga nga ànd ca am tuyaaba yu bare bare bari te ñëw toog ala kulli xaal rafetal ci sa dëkkandoo ci jaam yàlla la bokk rafetal ci jirim Cheikh Islam mooy wax ba léegi ca risaala risaalam ba tudd al ubudiya nee na rafetal cib jirim jirim mooy koo xam ne dafa ñàkk baayam te matagul góor bu dee góor walla mu ñàkk baayam te matagul jigéen bu dee jigéen mën mënalagul boppam kooku lañ tuddee jirim waaw kooku lañ tuddee jirim Euh, ndeysaan sunu inspecteur ba Cheikh Ahmad Tidiane Gaye mësoon na ca bind xasida mook tafsir Moussa Gassama ñoo bind ak Oustaz Aline Guèye ñoo daan bind ak ak sëñ tay ba sare Cheikh Tidiane gay mu ne jirim du xëy ñàkk moos sa baay bu baax bi la jur feeg yaa ngi am waa ju baax ju te xaw di la yar ndeysaan mu ne ngeen gis ne nit dana am waajur ba noppi njirim waajur wu mel noonu dee moo gën mu des fii di jur ndeysaan ca xasidaam nga mu ne noonaat la ñuy wax ci gépp nguur gu sàggane ay doomam waaw ba xasida ga jeex ndeysaan yàlla na yàlla def ko ci téere jëfam bokk na ci al ibaada mooy rafetal ci miskin yi miskin yi miskin yi mooy tey ñi munta liggéey ndax dañoo ñàkk cër léeg-léeg ñu ñu tudde leen ay handicapé benn seen tànk moo sikk ba mënuñoo liggéey wala seen ñaari tànk yépp wala seen loxo walla seen ñaari loxo yépp wala seenub gis wala seenub gis bu dee ci sunum réew dañoo defe ne ñooñu moom yalwaan rek sinon duñ dem te danay wax ni léeg-léeg nu yokk gasoil léeg-léeg nu yokk super <laughs> waaye buñ ci yokkoon ñaari dërëm wut genn kees al waqfu nga waqfu mboole miskin bu ngeen gis ci Sénégal mën na ca dund ñaari dërëm ñu yokk képp ci litre litre essence yokk ko ci gasoil def ko ci kees nag te bañ koo def ci kees goo xam ne ña ko cee def dañuy domp ndax ñun sunum réew lu ay def rek bëgg nga commission yàlla na nu yàlla yërëm réew moo xam ne kenn du def gratuit ci gratuit gone yi sax buñ boo boo cangee buñ la poussé taxaw di laaj loo leen jox ñiy famp pare-brise yi ko ko famp ba noppi taxaw di laaj loo leen jox sunu réew koo ci joxoon juróom fukki milliards ne ko jox ko Alioune Sall juróom fukki milliards ñett la may fukk la may jox yàlla nu yàlla yërëm lu tax la ca des commission la koy def <laughs> fii de bu ñu amoon kees goo xam ne gi ci miskin yi la jëm yàlla xam ne li li handicapé yi di sonn sonn li may wax ni Aline Fall xam na ci dara li may wax ni euh, euh, góor gi Saliou Lo xam na ci dara ah waaw moo wax la ko tey li may wax ni euh, ab lay Cheikh ñaari tëli xam na ci dara Fatou faatu Diallo yàlla na yàlla sàmm leen. bu ñu defoon kees bi nekk nii keesu handicapé yi am sii milliards ñu jox ko jenn waay da cey wut commission mu yéen ana commu ana commission <laughs> yàlla lu yàlla yërëm te commission bi kat bu doon saxlu lu normal ñu ne normal na waaye danañ xappit genn wàll gu yóbbu ne mooy commission bi waaw ndeysaan ala kulli xaal rafetal ci miskin yi jaam ci jaam yàlla bokk moo tax ki tëlee woor sunu sunu borom ne ko fidyatun taamu miskin fidyatun taamu miskin foofu nag amul taamul foqara déedéet taamu miskin miskin waaw mooy handicap yi bi nga xam ne tabaarkàlla mënul boppam te ma ngay laaj waaw ala kulli xaal ci jaamu yàlla la bokk rafetal ci ibnu sabil ibnu sabil mooy ki nekk ci sam réew te dëkkul ci sam réew dafa jóge Gàmbi ñëw Sénégal wala mu jóge Mauritanie ñëw Sénégal wala mu jóge Mali walla Guinée wala Côte d'Ivoire ak fu mu mën a jóge ñëw ci sam réew tumranke daay yomb nit lislaam bàyyi xel ibnu sabil muy étranger yi ndax da daf leen yomb waaw man mas na ma jóge fii ndeysaan jëm mbooro jëm mbooro Euh, bi ma ñëwee ba génn bayax te duggaguma kër kër mbir ndaw oto bi ma yor paan parle mu moteur ndeysaan mënutut a tàkk àgguma kër mbir ndaw te génn naa bayax maa ngi ci diggante bi kenn mësu ko gisee googu tumurànke ma seet sama saak seet samay poos lépp deux cent francs ci nekk <laughs> poos beeg oto beek saak bi ma ŋàbb ndeysaan lépp deux cent francs laa yor waaw la ma yoroon jënd naa ko ay miskiti ki kalma ñangaan pour yóbbul xale ya ma xool sama téléphone aw ma réseau <laughs> yàlla ma yàlla yërëm waaw ma xool sama téléphone aw ma ma daal di jéggi tali bi dem ci beneen côté ba oto yooyu ñuy wax allu dakaar wala euh, war gaynde peut-être kenn romb ma fa ma yëkkati ko loxo mu ne foo jëm ma ne ko bayax mu ne ma deux cent la <laughs> mu ne ma deux la boobu damaa bëggoon a dugg rek ba am réseau wàcc mu ne ma yéegal ma daal di yéeg mu dawal ba ma gis ne am naa réseau rek ma daal di wàcc door woo saar sama mécanicien wax ko fi ma paan wax ko ni ma jàpp ne moom ma fay jëlee waaw daay taxaw fa nag xaar oto bu ma yóbbaale ay gaa yu baax nag ñoo fa jaar ndeysaan euh, yóbbaale ma ba ca oto ba ma ne leen fii laa paan ñu def ci seeni pexe mu tëx tàkk ñu lonk ko man ma ànd ak ñoom li ma li ma fee bëgg ci anecdote bi rek mooy tumuranke dafa gaaw lislaam nag daa bàyyi xel tumuranke googu moo tax saa boo romb ci tali bi séen ku tumuranke teggil sa tànk laaj ko lan la dëgg la nag nit ñi ñu ngi ko yàq ndax léeg-léeg agresseurs yi def ko léeg-léeg nangam waaye sunu borom ne bu leen di ragal loolu nee na bu leen di ragal loolu waaw bu leen di ragal loolu ala kulli xaal jàppale ku tumuranke ci jaamu yàlla la bokk rafetal ci almamluuk al almamluuk mamluuk mooy ku ñu moom mbaa ñu yilif la mamluuk mooy ku moom mbaa ñu la tàmbalee ci ab jaam bët ci mbindaan bi ci kër gi ba ci employé bi ci bi ci bi ci entreprise société bi waaw loolu mamluuk moo xam doomu aadama la moo xam bàyyi ma la bàyyi ma wutal aw fas ngooñ ci jaam yàlla la bokk wëgg ko ci jaam yàlla la bokk suqi ko ci jaam yàlla la bokk jigéen jëkkat dégg ngeen jaam yàlla gam defoon ca xaj ba wutal ko ndox ba mu naan sunu borom ne ko ah yërëmandi ji nga yërëm xaj bi te ma bokk leen yilif mu soxla ndox moom xaj bi mënu ca jot mu jaral la nga wàcc ci teen bi tànqal ko ndox jox ko mu naan loo ma mose def baal naa la ko loolu la ko wax loo ma mas a def rek baal naa la ko moo tax fondation service service lit service Sénégal defe naa nun la tudd nun la tudd te première dame yoroon ko ca laa doon waxe nettalee laay euh, euh, nettali boobu ba ñu nekkee ca euh, King de Palace te doon waxtaan ci loolu moo di def ci nit ñi dafa am solo ndegam def ci bàyyi ma yi moo am solo nit wax waxi noppi waaw penc mi nag léeg-léeg ñu <laughs> ma koy wax suñ mbàkk si la dañuy ñee dañuy ñee ab sëriñ di ñee jigéen jigéen intellectuel yi ñëpp leen ñee ndax ñu ngi xëyee ko gont bu ci sa jëkkër bokkee rek nag nga sonn jëkkër ju ñee jabaram seet <laughs> jigéen jëkkër ju ñee jabaram bëgg ko bàyyee kër gi wala gaz beeg yu ni demee day sànn mbokk yi maa ngi ci sorat najm maa ngi ci ay 62 fasjudu lillahi waa abudu maa ngi ci ibaada maa ngi ànd ak cheikhul islam ibnu taymiya ci téerim bi tudd al ubudiya wala risalaam bi tudd al ubudiya mi ngi nekk di lim lenn ci ubudiya lenn ci ibaada ci jaamu gi bokk na ci ibaada ñaan ñaan adduaw muxul ibaada ñaan moo tax bu nuy dog nga dégg ñu naan yàlla yow laa wooral ndax man yow laa gëm li may bëgg a dogo yaa ma ko wërsëgale maa ngi lay ñaan nga suturaal ma fax fir maa xaddamtu li ma def lu jiitu weeru koor gi la ca jagut suturaal ma lépp wa ma axartu bu ñu waree ba noppi mu jëm kanam lu ma def ci lu jagut suturaal ma laahu akbar képp ko nekk ci di bëgg a dog lu sa xel nekk na nga ko ñaan wala boo lekkee tànn ba ba noppi woor nga bis ba mu jeex ñaanal ñaanal de te nun la yàlla mooñe alfatiha alfatiha nun la ko yàlla mooñe de waaw xaadim sàmb su bëggee fi ne ma ma may ko ma may ko million xaadim sàmm su bëggee ma may ko million damay wax sàll balla ay sa mi ci balla go nangam nangam euh, sa sa sa yaay astu nii mbay mbay wax a jeexal ne ma nag maa ngi ñibbi <laughs> waaw ne maa ngi ñibbi mu dugg ci biir ubbi coffre-fort bi yëkkati ci million takk jox ko yàlla nun la mooñee alfatiha alhamdulillah wala ba bismillah moo xam ci ñaar yi bu ci nekk baax na rabbil alamina arrahmaani arrahimi lu lépp yaa ngi tagg yàlla maliki yawmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastain lépp yaa ngi koy tagg daa ne ko nag ihdina maa ngi ñibbi kon duaa ci ibaada la bokk buñ koy wacc ginnaaw nañ koy bàyyi xel bokk na ci ibaada ibnu taymiya mooy limba léegi ak dëkkër ak mooy zikkar sunu borom nee na na ngeen nan ko nan ko nan ko bàkk nan ko zikkar lu bare bare bari Cheikh bi Haaj Ibrahima Ñas moo daan wax ne li feeg jàppee guñ la daf ci kër goo ci kër su bari mu néew <laughs> ndeysaan jàng alxuraan it ci ci ci ibaada la bokk jàng alxuraan noo ngi ci weer wi alxuraan boo ko moomee yaa ngay jaamu yàlla boo koy jàng yaa ngay jaamu yàlla boo koy déglu yaa ngay jaamu yàlla boo bëggee ña koy def yaa ngay jaamu yàlla maa la ko wax kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban ñeent yi boo ci nekk baax na waaye alxuraan daal na yëg ne yaa ngi ci ñeent yi commission bi koy jàngale wala commission bi jàng walla commission bi leen di déglu wala commission bi leen bëgg moo tax daara yi di am yaayu daara waaw jàngal xuraan mbokk yi yëpp Cheikh Islam Ibn Taymiya nee na ci ibaada la bokk waaw nee na yii yëpp ci ibaada la bokk waaw mu ne nag mu limaat yeneen xubbullaahi ci ibaada la bokk xubbu ci ibaada la bokk xasiyatullaahi ragal yàlla nee na ci ibaada la bokk wal inaaba ilayhi tuub dellu ci moom ci ibaada la bokk ixlaasu diine lahu sellal diine ji ngir moom képp ci ibaada la bokk wa sabru li li xukmihi lum ci sa kaw nga ci ibaada la bokk wa shukru li niami sant ay xéewalam ci ibaada la bokk nangu ay dogalam ci ibaada la bokk wéeru ci moom ci ibaada la bokk yaakaar yërmandeem ci ibaada la bokk tiit mbugalam ci ibaada la bokk ak yeneen yoo xam ne hiya min al ibaada lillahi cheikh islam moo ko wax ibnu taymiya ca risalatuhu al ubudiya maa ngi suratu najm maa ngi ci ay 62 fasjudu lillahi waabudu mbokk yi loolu ibnu taymiya wax benn présentation la ci wàllu ibaada ci angle bu yaatoo yaatu ndax mboolem yu dagan ak yi ànd moom boo ca nekkee dugal yéene loolu day mujj nekk moom it ibaada waaye nag euh, ci wàllu ci wàllu dagan nag ñàkk a dagan léeg-léeg nit def ci loo xam ni dana ci am tuyaaba am léeg-léeg loo xam ne nit du ci am tuyaaba kon nag ibaada liñ ci bëgg mooy jox yàlla cir tabaaraka taala jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem li mu digle te jaaree ko ci làmmiñu alayhi salaatu salaam nga ne ca waaw rekk yaa nga ca al ibaadaat léeg-léeg sax yoo nga xam ne yoo xam ne aada la ba noppi nekk ibaada lu dagan la ba noppi nekk ibaada moo tax nit ñi di xàjjale diggante ibaada ak taa waaw ibaada ak taa wala al qurba ak al ibaada ibaada mu di jaamu toroxlu gi ak nangu gi daf caa am toroxlu gi ak nangu gi daf ca am bu dee topp nag atiu llaha wa atiu rasulahu wa ulil amri minkum mbokk yi ibaada kon sharia da ko rëdd ci kaw suuf bëgg ñu nekk ca nun ñépp jubluwaayu ibaada mbokk yi maanaam but yi dafa am benn borom xam-xam ñu Muhammadul Bahi moo nekk amidu kulliyati usuli diin ci jaamia al azhar wala mas na koo nekk saabixan Muhammad Bahi amidu kulliyati usuli diin bi jaamia ci al waaw dafa waxoon al ibaadaat seeni jubluwaay lu mel ni julleeg azakaak ajak jihaad fi sabil lañ ca jublu la ca jiitu mooy daggi ak yar bakkanu nit ak dox diggante nit ki ak bokkaaleeg xiram dox digganteem ak def ay kirim yoo xam ne penc mi lay lor sori njombuteef ak i munkaraat sori ak moy ak xuus ci deri jàmbur yi sori càcc ak rey bakkan boo xam ne yàlla daa xaramal ko ko rey illaa bil xaq mu ne ibaadaat yooyu kadalik day dox diggante nit keeg égoïsme te mooy maa fi nekk man dong waaw day dox diggante nit keeg maa fi nekk man dong maa baax man dong ku melut ni man baaxoo ku bokkul fi ma bokk baaxoo léegi ibaada day dox diggante nit keeg kooku moo xam ci ay jikkoom la moo xam ci ay doxalinam ibaada day tax nit ki am yëg-yëg boo xam ne bi yëg-yëgu groupe lay doon ihsaas jamaa yi yëg-yëgu dund groupe léeg-léeg nit ne ci pénc te amul yëg-yëgu dund groupe wala bu dundee groupe it bu dul groupam du la nangul waaw loolu lu am solo la moom tam ci wàllu ibaada boroom xam-xam yi ñoo koy taarife noonu ba ñëw ci benn tomb mbokk yi mooy surutul ibaada fil islaam shurutul ibada fil islaam lépp loo xam ne dafa jóge ci nit nit def ko loola mën naa dem ba nekk ibaada ci moom su fekkee ne sart yi mat na la ci jiitu mooy an yakuna al amal xaalisan lillah lépp lu waaw def na yàlla rekk tax subaanu wa taala loola mën naa nekk ibaada ci moom fa min al ibaada masalan an yu'ila al aamil usratahu wa yanfa'u li ajli an yanaala ajra min allah mu daal nekk ibaada maanaam koo xam ne kii dafa xëy wuti lu mu am li muy am dafa bëgg ñëw indil ko njabootam ba duñu fande duñu dëñe duñu tafli ci bant fande mooy ñàkk reer diñe mooy ñàkk añ tafle ci bant mooy ñàkk ndékki nit ki di góor ba waa këram di ndékki di añ di reer léeg-léeg mu jaral Pape Mor Diaw mu dem ba Japon ndeysaan léeg mu jaral Ibrahima Ndiaye kalandoo mu dem ba itali léeg-léeg mu jaral Alxaaji Doora Sylla mu dem ba France waaw ndeysaan léeg-léeg mu jaral léeg-léeg mu jaral léeg-léeg mu jaral gone yi dem ba New York waaw war ci gaal yi ñu fu nañu dem fa waaye su fekkee ne danga bëgg dundal sag njaboot jëriñ ci nit ñi jariñu ci loola ngay def day am tuyaaba kon charte bi mooy def ko xaalisan lillaahi te yàlla tax ñaareel ba ci charte yi an yakuna al amal dimna xududi shara mooy li ngay def nekk ci biir rëdd yi nga xam ne mooy rëddi sharia waaw ah nit du def lu araam ba noppi ne da ca bëgg ngërëmal yàlla sàcc ba noppi di jox faqir yi sàcc it say sa njaboot ah déedéet fa yambaxi an yakuna al amal ala xasbi ma jaa fi kitaabillahi wa sunnati rasulihi su ko nefee mu nekk ibaada bu dul loolu nag kenn du ko jàppee ibaada ndax sunu borom kenn du ne ko lii nga bëgg mais man lii laa lay defal parce que lii laa mën ñetteel ba ci sarti ibaada an yakuna amaluhu gayru shaaxil lahu an alxiyaami bi ma awjaba llahu alayhi mooy loolu ngay jëf bu mu dox digganteeg li la yàlla di jëfloo li ngay jëf yow pour sa bopp bu mu dox mukk sa digganteeg li yàlla jëf la fa laa yajuuzu lil muslim an yatruka fardan waajiban alayhi li yaquma bi amali bi amalin axar bi niyati li ibaada sant la lii nga ne ko fu ñu day def lee te jàpp ne ibaada la loolu tam duñu ko nangu mbokk yi fa ida taxaqaqat hadi shurut althalatha yuctabar al amal alsadir min al insan ibada ñett yii dal bu dajee ci jëf jëf ji sell nekk ci biir sa yaa bañ dox sa diggante ak farata yëgal ne yaa ngi def ibaada beneen tomb bi mooy atteb ibaada fasjudu lillahi waabudu awjaba al islaamu al ibaada kama awjaba al ixlaas fi adaa fi adaiha li qawlihi wa ma umiru illa li abdullaha muxlisina lahu diin waaw kon ibaada farata moo tax yàlla bindunu digg mu ne ci laay ji surtout surtout euh, euh, albayna lañu leen lu dut ñu jaamu yàlla képp taxawal julli joxe asaka jaamu yàlla képp taxawal julli joxe asaka wa dalika lii ma lim nag diinul qayyima mooy diina ju jub ci lu fay def lu lii rek mu noonu mbokk yi yàlla na jàmm yàlla na kin ak seen njaboot ma ñëw ci beneen tomb mooy asbaabu tashriil ibaada lu tax ñu yoonal ibaada ay tomb la li anna al ibaada hiya al gaaya min xalqi al insaan ibaada mooy li tax yàlla bind nit wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun looloo tax ñu bind nit mbokk yi li tax nu bind nu nañ ci di xëy te di ci gont moo tax jéem koo xam di ci xëy di ci gont mooy li nu jig mbindaan mu xëy ñu raxas loo koy kaas raxas loo koy bool raxas loo ko cin moom mu xëy dem marché jënd wëñ ne day ràbb day ràbb benn torson baax na ba ba ba ñëw <laughs> ñaar la sabab bi li ann al ibaada hiya mawduu al imtixaan alladi ixtaara al insaan an yajtaasuhu ibaada moom euh, épreuve la ci examen yoo xam ne walla concours yoo xam ne nit da koo war di di ko romb déggal alla si xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala wal azizul xafuur borom bi dafa bind nit euh, bind dee bind dund ndax mu nattuñu liñ doon def ci kaw suuf la ca jag ak la ca jëgut liñ doon def ci kaw suuf la ca jag ak la ca jëgut ah waaw waaw naka noonu it borom wax na ci alquran inna aradna amaana ala samawati wal ard wal jibaal fa abayna an yaxmilnaha wa minha wa xamala al kaana zaluman jahula ba fi sëriñ baabu ca mbuur toogoon di ko firi tabaarakallahu xol yépp sedd waaw inna aradna al amaana ala samawati wal ard waaw benn tournoi bu nu organisé benn tournoi bu nu organisé ne asamaan bokkal mu ne mukk ñu ne suuf bokkal mu ne mukk ñu ne montagne yi bokk leen ñu ne mukk ñu ne doomu aadama bokkal mu ne ay ca <laughs> mu ne ay ca tournoi bi ñu ne ñu ne doomu aadama bokkal mu ne ay ca asamaan moom dañu ne ñoom bokkuñu suuf yi ne ñuy bokkuñu montagne yi ne ñu ne bokkuñu doomu aadama ne moom bokk na waaw doomu aadama ne bokk na innahu kaana zaluma keroog keroog la tooñ ñan la tooñ keroog la bokk tournoi bi te yëg ne ñi bokk tournoi bi yëpp moom lañ bëgg moom lañ bëgg a daaneel jëhu la te dafa xamut bokk ci asbaabul ibaada li anna al ibaada hiya taatullahi bi mooy topp yàlla ci li mu la bokk mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot ba ca teg mooy li anna li ibaadihi qidaau ruux wallati tasilu insaani bi rabbihi ibaada mooy dundal ruux ruux gu dund nag mooy connecté ak boromam bi ci tege xalaqa allahu al insaana ala hadihi ard fa fiha doomu aadama yàlla ko bind ne nag yaay wuutaakoon ci kaw suuf mbokk yi lan mooy njariñul ibaada mooy am tuyaabay àdduna tuyaabay àllaaxira sidna ali daan wax ne kafaa nii faxra an takuna lii rabba wa kafaa nii izza an akuna laka abda anta lii kama uhibbu fa wafiq nii ila ma tuhibbu waaw loolu la sidna ali daan wax mu ne moom doy na ko tiitar rek waaw yàlla di boroomam mu ne waaye doy na ko teraanga rek mu dib jàmm mu ne yàlla maa ngi lay ñaan li nga bëgg nga di ma ca teg li nga bañ nga di ma jóole ñoom mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot teg leen seen baaram foofu ñaan sama borom may dund ba ëllëg te weesu ko surtout naj mi foofu la yem mbokk yi bu fekkoon wóoruñu dañ daan def nañ daan def waaye koor gi oblige yal na yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen lu jub ci tafsir bi du man sunu borom lu ci jubut du sunu borom man mii ha jaageen jëf jaageen jëf ci kanam tuuti ak seen mbokk Alaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ki nekkoon ci wàllu xarit mbokk soxna Isa ci tafsir bi seen mbokk Alioune Sall yal na yàlla defar seen mbir defar suñuy mbir te def suñuy poos dara wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. laahi wa barakaatu laahi wa barakaatu